jaajëfal bu baax a baax yéen ñuy topp ci Leewtoo TV ku ci nekk di ko nuyu turam ak santam loolu la ñuy def mbégte ak contentement la ñuy am saa suñu jàkkaaroom yéen ngir indi leen di gën a fës ci xibaaru làmb dama nuyu sama mag ji Mbaye Babacar mu fay ma daal di ñëw jub kii leen di gën a fës Mbaye maa ngi lay nuyu. jërëjëf ajaratu Ndeye sa maa lay delloo ziar wante maa suñu xarit yépp yi nga xamante ni bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV di lay ñaanal jàmm ak salaam di kontaan ci ñoom saa su ne ci ànd bi nga xamante ne bii ñu ngi koy ànd ak ñun ci revue de l'arène bi nga xamante ne bii lépp luy information làmb fii rek lañ leen koy joxe waaye ñu ci ànd ak suñu partenaire ah di Ibou Jador indi ñu gàmb complet boobu vermicelle Jador macaroni Jador spaghetti Jador ñu ne déet ñu teg attaaya Jador Mbaye Babacar. Euh, mu ne déet ñu teg ci attaaya Jador ba léegi dañuy ànd ak eau Kayar di ndox mi nga xamante ne bii. set na sell na neex na oyof na ba pare ñu la koy jaay ci ay prix ya nga xamante ne bii prix yu yomb la abordable na sénégalais yépp ci jotee mën koo jënd kon daal mu ñëw mën nanoo jàpp ne au Kayar mooy. ndox mi ñuy aar ba tax na mel ah. ne saraax ci journal suñu lamb ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk la ka mu xëyee di Papa Sow sur le report de son combat contre le secteur c'est comme si le ciel ma tombé dessus maanaam bi mu ko yëgee dafa mel ni comme asamaan doon dal ci kawam mu mel ni asamaan si moo doon wàcc ci kawam loolu la wax mu ne nag li nga xamante ne bii moom moo am nii Euh, échec la pour suñu autorités yi nga xamante ne bii ñoom ñoo ŋànk réew mi nee na la ci ñoom ba pare mu teg ci euh, mu ne lii nga xamante ne bii am na wax dëgg yàlla metti na ci ñoom waaye metti na ci ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy euh, promoteurs yi ñu laaj ko ndax. bi promoteur bi euh, annulé combat bi woo na la waaw wala déet mu ne sama président écrit la woo sama président écrit moom ko wax waaye bi ma ko waxee kaw la ma dikkee ndax ku ne xam ne ne préparé combat ba mu des ay fan yu néew nga ñu reporté ko nekk na la nga xamante ni bii lu mettee métti la Papa Sow moo yëkkati yooyu la kàddu ci biir journal suñu làmb Chalon nag ginnaaw ba ñu reporté yooyu la combat bañ laajee gouverneur bi ne ci reprise combat lépp dajaloo daal di mën sëkk. su fekkente ne bii respecté nañ li nga xamante ne bii mooy mesure barrière yi gannaaw ba gouverneur dajee promoteur yi ku ci mel ni Thialis Gaston ak Pape Abdou Fall ak Fallou Ndiaye ñoom ñi nga xamante ne bii ñoo waroon a tëgg ay làmb ci fan yi ñu jëm euh, mu tegal leen ñaari point nag. Euh, huis clos total wala report ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy promoteurs yi nanguwuñu huis clos total waaye euh, nangu na li nga xamante ne bii mooy report bi maanaam dàq combat yi ba jëmmi jamono euh, gouverneur rek nee na heure boo heure bu ñu respecté mesures barrières yi ba lépp delluwaat fa mu war a dellu ñu tëggaat combat yi ku ci nekk delluwaat ci say ay activités. ca loolu nag dañuy dem ci Moussa Gningue Moussa Gningue ñu tudd duppee ko le de Fass la muy xam ne ci fu du combat Balla Gaye Bombardier n'arrange aucun des lutteurs arrangé wuñ kenn ci mbër yi loolu la wax parce que nekk na la nga xamante ne bii metti na trop ndax promoteur bi def na ci xaalis bu bëri mbër mi financé na mbër yi financé nañ xaalis bu bëri nee na arrangé wul kenn wante nag musaa ñi ngi moom mi nga xamante ne bii euh, kenn doo du ko présenté ci wàllu làmb ji dafa dellu si waat di ñu fàttali. ndax Moussa Gningue ku nekk xam na ne ànd naag mbay Guèye ànd naag Tafa géey ànd naag Gris Bordeaux mbër yi nekk Fass yëpp yàgg na leen di gunge ci wàllu xar fa xur fa nee na li nga xamante ne bii moom moo am di report combat yi nii nekkul lu bees ci làmb ndax nee na suñuy fàttaliku euh, combat Mbaye géey ak booy Bambara ci bis bi ver midi la ñu annulé woon boobu combat kon annulé kon kon report combat nekkul la nga xamante ne bii lu bees la ci làmb ca loolu nag Moussa Ndiaye moom ciy àddu moom nga xam ne moom mooy président école de lutte Balla Gaye numéro un la may xam ne nag mooy on doit indemniser les lutteurs impactés maanaam ñoo war jàppale ci mbër yi nga xam ne ñoom la Covid bi bi la mbër yi nga xamante ne bi ñoo préparé seen combat ba mu des ay fan yu néew ñu annulé la ko ki nga xam ne mooy président école de lutte Balla Gaye nee na dañ leen a war a jox ay ndàmpaay ndax li ñu investir ci ay comme ci xaalis bari na lool comme par exemple. bu jëlee exemple ci mbër ma nga xamante ne bii moo ko gën a jege muy Balla Gaye numéro 2 nee na Balla ay millions la dépensé ci préparation combat bi war a dox ci digganteem ak Bombardier waaye tamit bu nu xoolee promoteur bi ay centaine de millions la dugal ci li nga xamante ne bi moom mooy euh, préparation combat bi frais d'organisation ak lépp la nga xamante ne bi jëm na ci wàccaay combat bi kon nee na ñi nga xamante ne bi ñoo impacté ci rapportu combat yi état bi war na la leen jox ay ndàmpaay. te loolu nag lañ ci xam ne nag mooy li am loo c'est une cas force majeure ñu ci dédommagé nag. Mhm. bëri mhm. waaye ki nga xam ne xelam dafa màcc ci wàllu droit rek koy wax. moom ci indi ay lu jëm ci wàllu yoon moom Iba daf ko seeti taalal ko micro waxtaan ak moom ci li nga xamante ne bii mooy moo mën a tax ñu reporter combat maanaam moo mën a tax ñu fomm combat borom xam-xam boobu nag lim ko wax mooy. première point bi mën na nekk la nga xamante ne bii du jóge ci ñaari kaay yi cas yi par exemple euh, Mansour ak ki nga xamante ne bii mooy mbay Babacar bu nu waree bëri li mën a tax ñu fomm boobule combat mooy li li tax ñu koy fomm du jóge ci Mansour du jóge ci mbay Babacar day nekk la nga xamante ne bii nekkul fu kenn ci ñaari kaay yi su boobaa war nañoo mën a fomb li nga xamante ne bii boobu la combat ba léegi mën a beneen point bi mën na cee bokk ci li nga xamante ne bii bu demee bu xool ba xam ne amuñu benn pexe bu dul fomm combat bi amuñu xool nan côté yépp gisuñu lenn lu dul annulé boobu combat su boobaa mën nañ ko mën nañ ko annulé boroom xam-xam bi daal nee na euh, événement majeur lii tax ñu annulé ko mooy du nekk du nekk ci ñaari cas mbër yi te it day dem ba sës fa ñu soog ko mën a annulé. ci loolu nag père Max Mbargane moom nga xam mu ne ay jàppale ñu bëri seen xel ci loolu la dem ndax ku nekk xam na ne fi mu toll nii euh, mbër yi dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dugal xaalis bu bari ci làmb ji ndax euh, combat soo ko amee da dem préparer ak say mbokk di waajal sa bopp dem ci sëriñ yi di leen jox xaalis. loolee tax Max Mbergane moom mi nga xamante ne bii moom mooy entraîneur u Siteu nee na ñun ñi nga xamante ne bi ñoo ànd si Siteu ñu ngi xaar ñu jox ñu ndàmpaay ci li nga xamante ne bii mooy combat yi ñu annulé ndax liñ ci def kenn xamul nu mu toll. ba léegi nag ci report combat boobu la staff de Balla Gaye numéro 2. Mhm. règle gère la situation avec philosophie maanaam ban nouvelle bi dal ci ñoom. dañ ko jëlee ak xel bu daal. waaw parce que euh, staff la ba nga xamante ne bii macha allah. staff bu solide la staff bu mot li ñu doon la euh, ñu tàllal ci micro ki nga xamante ne bii moom mooy Basirou Gueye ñu gën koo xam ci Père Bass Père Bass li mu wax mooy li nga xamante ne bii moom moo xew ci euh, dëkk bi situation bi ñépp ko gisandoo nekkul la nga xamante ne bii lu ñuy laam-laamee la ndax situation la ba nga xam ne ñépp ci teg seen bët kon nag li ñu war rek mooy jéem a respecter mesures barrières yi feebar bi gaaw jóge fi ba léegi tàllal nañ micro ki nga xamante ne bii moom mooy euh, buuju Buuju moom nee na gis na président Macky Sall mu def li nga xamante ne bii moom mooy ay tournée ci biir dëkk bi euh, ba ñëw bi mu ñëwee nag mën nañ jàpp ne ci la ci la ci la affaire yi gën a yëngu mais ak lu mën di xew rek nañu respecté li nga xamante ne bii mooy décision bi nga xamante ne bii moom la moom la moom la autorité yi jël ngir euh, feebar bi jóge fi euh, wante Père Diaw tamit bi nga xamante ne bii moom tamit ku ne xam na ko ci Balla Gaye numéro de moom li mu wax mooy. Euh, situation dëkk bi fi mu toll nii ñi euh, ñëpp gis nañ ni mu demee maanaam daal ñoom ñoom ñett ñëpp mën nañu jàpp seen kàddu benn la ndax li naan montre yu baax yëpp bokk heure moom moo ci nekk Père Diaw nee na fi mu toll nii nañu jéem a xeex ak li nga xamante ni moom mooy feebar bi mu jógee fi rek ñu mën delluwaat ci li nga xamante ni bii moom mooy activité yi. waaw Père loolu la wax mais ba léegi tamit nee na état bi mënoon na sauver surtout combat Balla Gaye ak Bombardier ñu def ko li nga xamante ne bii mooy huit kilos parcelle maanaam huit kilo ba nga xamante ne bii du nekk huit kilo total mais mën na nekk huit kilo ba nga xam ne fu fukki nit war dugg ñu dugal fu juróomi nit wala ñu dugal fu juróom benn nit jéem a sauver événement bi nga xamante ne bii réew mi yëpp ñu ngi ko doon xaar. mooy loolu nag ca journal les lañ dem les nag ka muy xëyee di Bira moom mi nga xam ne mooy président du CNG. moom nag bi nag mooy c'est satisfaisant pour saison bii nii mbay ba mu ne bilan bi baax na. Euh, te yàggul mois de mars nañu reprendre boobu ba léegi bu xoolee ci ñeenti weer lay toll wala juróomi weer mais nee na amul benn weekend ba nga xamante ne bii sommé nañu ci weekend yépp làmb am na ci promoteurs yi jël nañ date yépp nga xamante ne bii moom moo am depuis mois de mars ak léegi te teg ci ñun waa CNG ñu ngi doon organiser li nga xam ne moom mooy ay mercredi de l'arène kon daal mën na mën nanoo jàpp ne bilan bi nu bilan bi jot a am ci saison ren mën nanoo jàpp ne bilan bu baax la. ca loolu nag ba léegi les arènes la ñuy descendre renvoi du gala de lutte moom ca renvoi ba lay wax. Uh-huh. nouveau ordre Papa Sow kii di B52 Reug Reug ak Gouye Gui uh-huh. ñoom nag ñu ngay gérer situation bi di ko apprécier. waaw ku ci nekk yëkkati na ci sa kàddu parce que Papa Sow nee na li am nii euh, gàcce la ci suñu autorités yi mënoon nañoo teg mënoon nañoo teg yeneen stratégie yi nga xamante ne bii mënoon nañoo bañ a reporter li nga xam ne moom mooy combat bi Papa Sow si tam la ca wax mooy euh, état bi am na ci part de responsabilité. am na ci part de responsabilité wante CNC tamit am na ci part de responsabilité kay te moo yëkkati yooyu la kàddu rëg-rëg ba ñu ko joxee kàddu mu ne wër-gi-yaram moo ëpp lépp ni ñu koy waxee la santé avant tout mi ngi noonu ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Bombardier nag mu ne digganteem ak ak Balla Gaye affiche bu mag la woon te Sénégal yëpp ñu ngi ko doon xaar ñu naroon a gis comme combat bu neex guy gi ñu jox ko kàddu mu ne VIP yi dañoo war a bàyyi bu ñuy kaas rek di kaasal seen bopp bu ñuy waxati nañuy wax euh, dañ nañuy wax di waxaalal yeneen bëri nga xamante ne bi ñoom ñoo nekk seen gannaaw. ci loolu nag ba léegi dañu dem ci journal record record nag la may xam ne révélation d'Aziz Ndiaye agent de Balla Gaye numéro 2. Mhm. ce que la mu ngay indi ay leeral nag ginnaaw ba mu ne ko lan moo tax. sax sëriñ te tere la li nga xamante ne bii moom mooy làmb. te gis nañ la ba léegi yaa ngi yëngu ci li nga xamante ne bii moom mooy làmb ji ndax agent nga ci ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye numéro 2 bi nga xamante ne bii moo dëkk la ci Géejawaay mu ànd ci ay leeral nag asi li mu wax nee na sama sëriñ li ma tere moom mooy jël sama xaalis di ko tëgg ci ay làmp di ci wut li nga xamante ne bii moom mooy bénéfice sama sëriñ loolu la ma tere mais kantaan nag may jàppale mbër loolu moom dëgg yàlla sëriñ bi nekkul la nga xamante ne bii aaye na ko loolu moom moo tax ma ànd ak ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye di ko jàppale ci li nga xam ne moom mooy euh, combat bi ba léegi tamit bi ngeen ko seetee laaj ngeen ko li nga xamante ne bii euh, diggante Boy Niang ak euh, euh, Balla Gaye après bu Boy Niang daanoo est-ce que daañu bëri ak moom mu ne ñun vainqueur la ñu bëgg a bëreel mais lu ci mën di xew ñun ñi ñu war a waxtaanal ak ñi ñu war a giseel daañu gisee ak ñoom waxtaan ak ñoom lu ci mën di am incha allah yéen ñëpp dana leer ci seen bopp Aziz Ndiaye moo yëkkati loolu ci biir journal bi. ba léegi wax na ci Balla Gaye dana na Balla Gaye kase yi nga xamante ne bii fay nañ ko ko ci euh, contrat yi xaalis bu bari la wante nag nanguwu la wax ni mu toll. toll. lam noonu nag day dem ci nga xam ne mooy Reug Reug Reug Reug ginnaaw moom amee ñaari weer fii ci États-Unis nag moo war a dellu fii Sénégal suñu réew 20h30 incha allah. 20 h war a ñëw tey jii démb sax lañ ko jàppoon ci guddi gi ay 3h du matin ki nga xamante ne bii moom mooy Assane di Leyti Ndong Leyti moom moo ñu xamal ne ki nga xamante ne bii mooy Reug Reug tey bu 20h jotee dana ñëw euh, mais nag euh, li tax mu tarde mooy vol bi day jaar Paris. bu jaaree Paris dana fa def escale bu yàgg looloo tax mu tardé biig la war na ñëw mais tey incha allah bu 8h jotee bootee jotee ba tegal fanweeri simili ci guddi mën nañ koo xaar fële ca aéroport Blaise Diagne ba nekk fële ca Diass incha allah di euh, champion ba nga xam ne rëg-rëg yàgg na fële ci bitim rool bitim réew lool wuti woon li nga xamante ni mooy doole waroon na jàkkaarloo nag ak euh, guy gi mu nekkoon komba bu neex ba nga xamante ne bii mën nañ wax ne mbas mi moo fi jaar ba combat boobu ñu ajandi ko. daanaka koy mbasaare. mu ngi a baax lu moo nekkoon mais li ñuy tàggatoo xanaa di euh, jaajëfal suñu mbokk yëpp rek di leen euh, bëggee di leen gën a wax ñu respecté li nga xam ne moom mooy mesure barrière yi di takk masque fu ñu toll respecté li nga xamante ne bii moom mooy euh, dandante bi wante tamit di laal li nga xamante ne bii moom mooy ay sel suñu loxo ngir tawat bi gaaw jóge fii ñun ak lu làmb. ñu mën a delluwaat suñuy activité ci jàmm ak salaam waaw te it ku ku ku jëlagul sa vaccin nga dem jël sa vaccin ndax bokk na ci li nga xamante ne bi mën na laa aar ci tawat bi. nañ ko def sàmm suñu bopp sàmm sàmm suñu askan sàmm suñu njaboot noonu laa def daal leen béggee bu baax a baax béggee Mbaye Babacar béggee équipe technique bu Leewtoo TV waaye jàpp ci image ba mu yem li Fama Fama Dramé Socé war a damay bégg ci yow bu baax a baax Yacine Fall sama caméra bu mën bi kenn du mañ pro ah borom shooting yu baax yi loolu photo bu baax bég naa ci bu baax a baax bilan jaay dama lay kontaanee di sant di gërëm équipe technique Leewtoo TV yëpp di leen gërëm yéen internet yi den ñaanal jàmm te ko sàkku ci yéen ba ëllëg allah ci Leewtoo